Leewtoo production présente le choc des gladiateurs Tapha numéro 2 le 8 août à l'arène nationale jóge Bawol waa Bawol yëpp topp ko Boy Niang numéro 2 waa Pikine ne suñu doom nga duñ la bàyyi nga wéet ndam li Pikine la jëm wala Bawol loolu amateur yëpp di laaj Tapha Tine Boy Niang numéro du ko dàq mën nga seetaan lamb ji ci pay-per-view 3W point lamb diaspora mbokki Sénégal rendez-vous le 8 août nationale. ay jëmbër ñu ngi lay ziar ci loo nekk mbaa am nga jàmm nga jëm ci bis bu mag le 8 août incha fii ci arène nationale sa diggante ak Tapha fan nga toll ci wàccaay. waaw amaa loolu maa ngi lay ziar nuyu Sénégal nuyu monde entier bi yëpp nuyu Teraan. sant yàlla julli ci yonent bi sant su ay ñaari waajur di nuyu waa kër Cheikh na Cheikh Sadou Abi waa kër Cheikh na Wuldu Maamin yëpp di nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp di nuyu waa kër maam borom Touba di ki nuyu sëñ Abdou Karim moom sëñ Fall di ko ziar bu baax nuyu sëñ Modou Kara Mbacke Noreyni di sama papa maa ngi koy ziar waa kër sëñ Afia Mbacke ñu ngi leen di ziar di dugg waa famille maam El Hadj di leen ziar baax waa Tiwaawan di nuyu sama xarit di doomu xalifa bi maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax ak Cheikh Mohamed maa ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp waa di la nuyu di nuyu monu làmb di nuyu waa CNG bi di nuyu amateurs yi di nuyu ménagers yi promoteurs yi di nuyu mbokk mbër yi yëpp di ziar ñëpp di nuyu ñu ma àndal di nuyu waa Pikine bu baax ak képp fépp fu fan su booñaa nekk rek maa lay nuyu di la ziar bu baax a baax. waa wàccaay bi ñu ngi ci. waaw wàccaay bi moom yàgg na boobu combat bu mu taxawee yàgg na donc ñun dañ ciy nekk. parce que ñun moom dañ nekk mbër yoo xam ne combat ou pas combat dañuy nekk si entraînement parce que làmb mooy ñu yoo xamante ni moom dañ ciy nekk rek quoi bu ñu amee combat bu ñu moo tax ah moo tax combat bi travail bañ koy daree na man ak staff bi ak équipe bi école rek di ñaan suñu borom ñu incha allah le huit suñu borom may ñu ndam ci kàttan suñu borom incha parce que làmb moo ñu boole rek làmb moo ñu boole ñu ñu nekk ci xare nekk ay làmb am fu ñu teg suñu bët donc comme li ma waxoon ci plateau bi rek fu ma teg sama bët nekkul teg teggi moo ma koy may daal wala waaw damay am fulaak fay nekk sama entraînement rek képp koo xamante ni amateur yi bëgg nañ suñu làmb ak foo nekk rek ñu war a bëri rek làmb boole ñu bëri loolu rek moo ko moom duñ ko teg fu dul entraînement entraînement ànd ak say mbokk ànd ak say nit ànd ak say am di jàmm nga préparé ko comme ni ñu amee amee habitude di koy def suñu combat yëpp foofu rek lañ ko teg. di ñaan suñu borom ma ñu ndam mais li nga xam ne moo ñu wal daal mooy liggéey bi bi ñu fekk nii te yàgg nañ cee nekk te ñu ngi ci incha allah foofu lañ lañ ko teg di ñaan suñu borom defal ñu ndam rek incha allah bu soobee di nuyu sama papa Mansour Diop di ko nuyaale di ko jaale di jaale Paala Diop di nuyu sama papa Diop Basson di ko ziar bu baax di leen jaale seen waajur bu fi génn di ñaan suñu borom xare ko àjjana di jaale waa Pikine yëpp waa. xam nga combat bi fi mu la waaw xam moo tax. moo tax def na huit mois wala ëpp na ko ñu nekk ci liggéey liggéey bi xam fi ñuy yóbbu moo tax mosuñu bàyyi liggéey bi ñu ngi ci chaque jour chaque jour te duñ mës a bàyyi léegi des bëreetul matutal deux mois ñu ñaan suñu borom yóbbu ñu ceeg jàmm suñu borom may ñu ndam ci barke Seexna Seex Saaliw incha allah maa ngi nuyu fi ma fekk ni muy Sall Batora Batora fitness ci sama mag suma xarit suma doomu nday mu Ousmane Fall moo fi investi lu bari du suñu gannaaw suñu lépp et puis fi bi boo xoolee ñun doomu Pikine yi namuñu sax saal boo xam ne mi ngi extérieur da loolu Ousmane moo ñu ko may ñu ngi koy sant yàlla ba di ko nuyu di nuyu coach yeeg yëpp ñoom Zala gaay fi nekk yëpp di sant yàlla bu baax a baax. tey ma jàkkaarloog Tapha Tine. ne ko boo ñaanee na faaw ngeen xeex yéen ñaar faaw ngeen corps mu ne ma loolu moo ko gënal tegal ko boolu tufe tey tey. waaw Tapha mu ne xeex ak man moo gën a lekk moo ko gënal. Hmm. waaw man tamit dama lay wax ne moo ma gënal naan rek. xeex ak Tapha naan. moo wala dina am njar bu sedd guy lu mu ci doon rek. est waaw mais dara wóorul ñun ñun ay xale lañu amul ku ñu mënta xeexal ci làmb xeex moom xam nga am décision xeere rek nekk xale entre na xam fi ngay dóor bu baax. yéen ñaar dàq moom moo ko dàq. dégg moom moo ma dàq xeex. moom moo dàq bëre de ñun moom ay xale lañu rek ñu dara waaye ñu ngi jàng waaye daal. li ñuy def ñu ngi sant yàlla mën nañ ko xam nañ ko te jàng nañ ko te suñuy papa yëpp ay mbër lañ suñuy ay nijaay ay mbër lañ ci làmb lañ judd waaw du ñu toog nag naa ñoo dàq kenn dara parce que yàlla rek mën waaye daal li nga xam ne moom lañu war a nekk ñu ngi ci te bu jour ba dina xam ne moom gënuñu bëgg combat bi moom combat bi lu mu ko jaral rek dañ koy jaral moom lu mu ci bañul rek ñu duñ ko ci bañ ak lu mu mënta doon loolu yóbbante mu xam bu baax a baax. combat bi. waaw lu mu si bañul. man bañu ma ko ci. na xam loolu bu baax ñoom booñaa ma la wax loolu nee na booñaa bi loo ci combat bi loo ci bañul moom booñaa bañu ko ci. na xam loolu bu baax bu jàppee daa bëgg combat bi moom fii la ma toll ci bëgg combat bi na xam loolu bu baax a baax moom mi fi nekk 2006 xam nga 2005 ba léegi demul bawul puusul paasul man mi nekk sama yoon dem bu jàppee ni moo dafa bëgg combat bi kon man na laawal def non boo déggee man waaw boo déggee man la puus paasu Tapha Tine nu mu war mel bu ko meloon a ni mu war a taxawee ci làmb donc mun naa ko bañ a fekk ci làmb sax kon def na li muy def ci làmb bu yàgg parce que moo ma jiitu ci làmb bu yàgg génération am gis nga leen nekkul man la nekkal génération moom ñu nekkal génération gis nga ko donc moom bu demee ba war a ay rakam jàpp ne moom dafa bëgg combat mi ngi nax boppam wala dañ koo gën a bëgg mi ngi nax boppam te buñ ci yeggee at bi gën suñu diggante dinaa xam ne gënuma bëgg combat bi combat waa. di wax ñuy wax nag supporters yi wala ñuy xeex wala ñuy sànni xeer yëpp jaru waa mu dégg naa ko mu wax lan loolu dëgg la mu at bi day génn suñu diggante man ak moom rek fay ne. bu ñu tëjee man ak moom rek fay ne. kenn du ñu rax. yéen ñaar kese merci donc rek supporters yi ma lancé appel boobu rek nee na bu leen sonn sax jarul xeex jarul xulo fair play kaf ak rek ñoo ni dalal nii Arène Nationale kaf ak ree fair mais tafaatin man ak moom ñoo nekk si diggante bi abi sif génn sif la génn suñu diggante na xam loolu bu baax waaw kon nag jarul ay xani xeer jarul xeex jarul provocation waaw ñu ñu woote jàmm man Boy Niang en tant que ambassadeur non violence maa ngi woo jàmm di wax sama bépp pépp supporter jàmm ak salaam parce que loolu la ñu xamee jàmm am salaam ci fair play ñu ñëw comme lu ñu doon def gunge seen mbër seen mbër li mu nekk xam na bu baax fu mu teg tànkam na bu baax jarul xeex jarul xulo jarul toj oto jarul provocation amul benn problème nañ bàyyi lépp si waxu suñu borom ñoom ñu def leen war su baax ma ak man li ma war man incha allah. nee na ma doo puus doo paas. waaw. Ah. def njëkk ngaa def hmm. xam ba xam moom jaarukaay wala du jaarukaay loolu liggantiwu ma ko laamu moo ñu boore man ñu war a bëre loolu laa liggéeyante ma nekk sama entraînement fonk bis bi am fu ma ko teg bu baax moom li mu doon moom liggantiwu moo ko loolu affaire boppam la. que mu doon jaarukaay wala mu bañ a nokk jaarukaay loolu affaire boppam la loolu mooy xool rek mais man xam naa fi ma jëm xam naa li ma koy may te xam naa ci li ma nekk. ànd ak ay mbokk di suñu borom parce que moom moo yor ndam di ko ñaan ci barke Cheikh na Sall ci barke mag yu bàyyi suñu moom defal ñu ndam loolu rek am solo te ñun ñu ngi ci bu baax ñun moom xaaruñu tafaatin ou pas ñun ñu ngi suñu mbir ñu war a loolu man. damay nuyu waa Casamance bu baax di nuyu nen sama yaay bu ak jaata waa Bayaari waa Casamance maa ngi nuyu di nuyu waa kër Cheikh Mafou Wuldu Abba waa kër Cheikh Mafou Wuldu Abba Casamance sëriñ bi maa ngi leen nuyu baax di nuyu waa Kambi sama fans club bi leen wax ñu waaj maa leen xaar mais di nuyu waa gambi bi yëpp di leen ziar bu baax a baax a baax waaw di wax ne rek ni ñu war a nekk moom ñu ngi ci incha allah di nuyu waa Bawol bu baax xam nga man Bawol Bawol laa côté boobu nag dama ñu bëgg a jël ñu bañ jël combat bi di ko fixé ci affaire da ay bawal yooyu yooyu doxalu làmb quoi waaw boo xoolee moom làmb ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay te ñoom gënuñu ma dëkk bawal donc làmb ji bu ñu ko jël di ko fixé ci ay bawal bawal ak ñeneen ak ñeneen déedéet boo waxee bawal bawal rek da nga ma boole parce que foofu laa bokk donc làmb ji nañ ko génne foofu ñu xam ni tafaatin ak booy ñaa équipe di bawal mbooloo ak école booy ñaa ñoo war a bëre làmb moo leen boole benn tàkku saan yu bëre donc man samay maam yëpp sama bawal su may niyaay ñu ba ñu may àndal yëpp ay bawol lañ jour làmb ja di ñëw làmb ja ñooñu yëpp ay bawol bawol lañ maa ngi nuyu waa Samb fi ma dëkk waa Samb école waa Samb Tokosen waa Samb Pël waa Samb Xooja di leen nuyu bu baax a baax fi bokk waa Baje Kàdd di leen bu baax a baax moom reefan foofu mu dëkk samay mbokk nga fa donc bawol bi moom dafa yaatu ma nuyu waa Jurbel bu baax waaw waa Jaxaay di leen nuyu bu baax a baax waa Jaaxal kon nag man dama bokk bawol donc am na loo xamante ni bu ñu koy indi ci combat waaw pour ñëpp la waaw mam alaaji Malick waaw Tiwaawan la base bi waaye pour ñëpp la donc ah donc affaire yi moom bariwul foofu li am solo mooy Tapha booy Boy Niang ñoo war a bëri abi suuf la génn seen diggante ñu xeex bëre ñu xeex bëre wane jom wane fulla wala fayda si boobu mag moom mooy xool bu bëggee ñu xeex dañuy xeex bëggee ñu bëre dañuy bëre lu mu indi la dafay fekk lu ko gën a tar hmm? man maa wax loolu man Boy Niang lu dafay fekk lu ko gën a tar mais Tapha Tine ku ne xam na ne xeexkat la. waaw Diarra man ma xeexkat moom. non moom waxuma la yow. waaw Tapha Tine la moo tax man la man du waaye suñu borom moo yor moo mën mooy lépp lépp mu ngi suñu loxo loxo suñu borom te ñun ay jaam lu xeebu lañu day ñaan suñu borom mu may ñu ndam mu suturaal ñu. li ngay waxee dafa mel ni ngaa suur Tapha Tine bi ak yow mu ëpp. ah waaw waaw nag ma bëgg yëngal rek waaye kon du ma yëngu. jarul may yëngu comprendre nga da nga bëgg a yëngal rek. non dara du risque boo nekkee xale nekk ci làmb waaye boo ñaar loolu. waaw dafa ñi mu bëreel mhm. man tamit ñi ma bëreel moom bëreewul ak ñoom parce que làmb noonu la day bëreeg ñii ma bëreeg ñii noonu la donc bëreeg moom du risque ci man waaw ma ah, ci loolu ma profité waale nuyu Pape Thialis suñu frère maa ngi koy ziar bu baax a baax gentleman la xam nga euh, suñu signature bi basé li mu def yow ak li ci am yëpp xam nga dañuy tiir ay leçon rek. parce que lu baax la ci jublu et puis jantal moom la ñu am ay relation yu nice muy sama gannaaw bu baax a baax maa ngi koy bëggee di ko ziar di ko ñaanal jàmm di wax sponsor bi ñëw jàpp ci parce que dafa dëgg combat bu neex muy combat jànk muy Boy Niang ak Tapha Tine bu jànk la donc gars yëpp nañ ñëw jàppale ko incha allah di nuyu promoteur yëpp waaw sama papa Gaston maa ngi koy ziar bu baax ak yeneen promoteur yëpp parce que bu ñu jëlee seen xaalis bu la neexoon ñu dugal ko fenn dañ ko dañ ko dugal ci làmb pour ñun donc lu ñu war rek mooy wax bu naaxet ak ñoom ñu jéem leen lépp lu ñu def gis ci faay bu ëllëgee ñu téere ci ay leçon rek loolu moo ci am solo. nga mm-hmm. mm-hmm. man jiw ma xam lu mu yor man li ma yor ak li may wax moom laa xam sama yoon ci moom li muy wax ak ay affaire am ak ay slogan am man li ma wax moom laa xam mu sama kopp fondé te incha ci kàttanu yàlla dafay naan. nee waaw loolu ba ñu yegg ca nga xam ni combat bi du sedd na xam loolu bu baax. bu mu jàpp ne combat bu yomb lay bëre de. lan parce que dafa war lu sedd sama diggante ak moom parce que moom moo ko déclenché comme dafa déclenché woon ma diggante ak moom suñu biir géew waxuma ay xeex ak ay supporters yu xeere man ak moom ab lu sufle na xam ne du sedd te fu ma woo maa ngi koy xaar pare naa ci lépp. maa ngi koy xaar bu dee bëre maa ngi koy xaar lu ma woo maa ngi koy xaar ndax xam loolu baax na bu jàppee ne combat bu yomb lay bëre mi ngi nax boppam de lu leer laa lay wax nag. loo koy yóbbal di wax suñu borom ma ñu tan ak may ko Sénégal may ko monde entier yëpp di nuyu waa Pikine ak mbëru Pikine fi am combat bi suñu morom may leen nuyu ñëpp di nuyu sama waa écrit les ziar ñoom ñoom grand maji kalma ñu déggoon Deschilane ak gars yi may ordinateur gars yi jàppale ci yëpp maa leen béggee ñoom ñëpp macha allah maa ngi béggee ñëpp sama ay mbokk samay jàmm sama waa kër maam Cheikh ni du ma sekk ak Cheikhou Cheikh na yëpp waa kër Cheikh da Thielaw waa maa leen nuyu bu baax waa kër Cheikh Adjuma Ba ñëpp maa ngi leen nuyu di leen ziar man dafa ay kilifa yu mag yu nekk sama ginnaaw waa diigaan sama am kilifa yu mag yu nekk sama ginnaaw di ma jàppale. diigaan ay dama ne ay kilifa yu mag laa wax ci réew mi yoo xamante ni dañuy son sama mbir du may jàppale kon man lu may def ma koy teg ci yoon lu ma mbër buy dem ni asalmaa di mbëkkante rek pour nga xam ko bu baax nag waaw maa leen nuyu ñoo xam ne bëgguñu tu seen tur génn bëgguñu seen dara génn maa ngi leen nuyu di leen ziar dañu jox seen cër ak seen wàccuwaay maa ngi waaj bu baax nag incha allah suñu borom bu ñu mayee tan fekkee incha ba jour ba nga xam lii ma lay wax ci kàttanu yàlla incha allah maa ngi nuyu waa Touba waa Touba Daaru sëñ Cheikh Daaru Rahman di ñaan moom lokku leeram di nuyu sëñ Galas di sëñ di nuyu ñi ñu baax ñi fa nekk ñëpp maa leen nuyu waa seew maa leen bége bu baax waaw di nuyu ñëpp di ñëpp waa Ili Saarum ñoom Mar Fafoka ñoom ñoom Diofior ñoo joor sama gars yi ñoom Xadafi maa leen bége bu baax di leen ñaanal jàmm waa ceeb sama mbokk Bawol Boy waa ceeb waaw maa leen bége bu baax gars yi maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëp waa Paku Lambaay foofu moom samay sama ñoom sëñ ñoom sëñ Fall ñoom sëñ Jib waaw foofu samay mbokk lañu moo tax boo nee Bawol rek dafa yaatu parce que ñun dañ cee bokk di nuyu sama yéen xam nga journaliste yi maa ngi leen bëgg bu baax xam nga di leen nuyu di leen ziar bu baax di leen ñaanal jàmm maa ngi nuyu ñëpp képp supporter boo ñaa nekk di leen wax ñu waaj parce que contre la dégee gis nañ stade bi ni ñu ko def mais dama ko xeeb dama bëgg bii incha allah bu ñëwee ñu tëj porte yi ci kàttanu yàlla incha allah mais na xam ne moom à domicile lay bëree waaw xam loolu bu baax donc man lu may woo sama supporters yi mooy jàmm non violence mais ñoom nañ xam loolu ñu ànd ak yar xam ne à domicile la ñuy bëree waaw di nuyu waa Médina bu baax a baax di nuyu Abdou Kane yi di nuyu ñëpp di bëgg ñëpp fii tamit Zal maa ngi nuyu Ousmane bu baax. Leewtoo production présente le choc des gladiateurs. Tapha Tine Boy numéro 2. le 8 août à l'arène nationale. Fatin jóge Bawol waa Bawol yëpp topp ko Boy Niang numéro 2 waa Pikine ne suñu doom nga duñ la bàyyi nga wéet ndam li Pikine la jëm wala Bawol loolu la amateur yëpp di laaj Tafatin Boy Niang numéro 2 lamb du ko dàq mën nga seetaan lamb ji ci pay-per-view www.lambdiaspora.com mbokki Sénégal rendez-vous le 8 août à l'arène nationale